Saint-Louis dafa fekk ndox mi mu ngi jëm si fii li ñuy wax crue bi moo ngi jóge foofu di ñëw fii ci Saint-Louis yegg seegul nag ndax pante la ndox mi dafay dox di ñëw ñu ne nañ ko njëkkee fii pour ñëw xool si li nga xam ne mën nañ ko fee tàmbali anticiper balaa moo yegg si li ñu war a defaraat yëpp ñu defar ko moo tax mu njëkkee ci digg bi nga xam ne mooy daaru benn la ci digg yi nekk ndar di protéger dëkk bi mu amoon ay vulnérabilité na am na ay parties yoo xam ne xaw nañ gasu boobu mi mënoon ñëwoon mën na faa jaar waaye forces armées actuellement ñu nga fa génie militaire pour defaraat ko ba bu ndox mi ñooy du dugg ci biir quartier yi donc loolu mooy bi nga xam ne njëkk na beneen bi quartier yi nga xam ne nag ndox jot na fee dugg muy xaar yàlla ñu ñëw fi seet si leen euh, noonu lañ koy jàppee rek ba nga xam ni incha allah lu mu laaj ñu mën koo cee def